bismillahi rrahmani rrahim mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ñu ngi dellu si ci sunu ñetteelu jataay ci nafar gi ñuy nafar sunu téere boobu di taalimu sibyaan at tawxid te muy jàngal ndaw ñi kennal seen boroom boroom téere bi mu ne ci ñaareelu laaj bi wama maana rabb wama maana rabb baatu boroom lu muy tekki maanaam laaj bu njëkk biñ la laajoon kuy sa boroom baat boobu lan la ëmb ca tontu nga mu ne fa qulil maaliku maanaam nanga wax fa mooy na nga wax almaaliku baat boobu de la muy tekki mooy buur bi moom lépp almaabuudu ki ñu war a jaamu ci dëkk kon gis nga buñ lay laaj ci sa biir bàmmeel kan mooy sa boroom baat boobu walla laaj boobu dafa ëmb kan mooy sa boroom bi nga doon jaamu kon day impliqué waale la nga doon jaamu loolu moo tax kon góor-góorlul ba bunt bi nga xam ni mooy buntu njaamu fexeel ba bu ci bokkaale tàbbi ndax bu ci tàbbee rek daf ko yàq wattandikul kon bokkaale bu mag wattandikul bokkaale bu ndaw wattandikul kadaalika bokkaale bi feeñ waaye wattandikul tamit bokkaale bi nga xamante ni nii dafa nëbbatu kon baatu borom li muy tekki mooy buur bi nga xam ni moomum lépp moo bind lépp mooy wërsëgal ñépp ba ngoog mooy kiy doxal mbir yépp waaye tamit moom mooy ki ñu war a jaamu ci dëkk mu teg ci mu ne wa maana allahu mu daal di ciy dolli maana allah nag nga xam ni mooy labdul jalaala muy tur bi nga xamante ni nii sunu borom rek ka ko jagoo mu ne baat boobu la muy tekki mooy lii dul uluhiyati walubudiyati boroomu njaamu ak toroxloog wommatu ala xalqihi ci kaw mbindeefam yi ajmain ñoom ñëpp kon baatu allah gis nga dafa gën a jagoo ci wàllu jaamu mooy ki nga xamante ni nii mooy boroom uluhiya uluhiya la muy tekki mooy ak njaamu suñ ko waxee jëme ci borom bi tabaraka wa taala ubudiya buñ ko waxee la muy tekki mooy ak njaamu waaye buñ ko waxee jëm ci jaam yi bu ko defee kon njaamu googu toroxlu googu wommatu googee sunu boroom tabaraka wa moom la ñeel mu nekk aqam ci kaw nag ay jaamam jaamam yëpp kon bu ko defee mbokk yi ñu daal di taxaw fii incha allah ba bind bi ci topp asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.